Mbacke Balla ñi ngi lay giar di ñëw di yeeslu di feddali sa kóllëre at àdduna parce que nag àdduna kat suñ koy wax euh, tey fii ci jamono ji ñu toll mooy euh, sa maam a tax parce que lim fi def at fi mu toll ba tax euh, li yëngal jamono muy diggante Russie at euh, fële ñuy wax que ni bëgg kaa teggi sax ci biir Russie bokk ci biir Russie parce que ñun duñ ko nangoo def ñun nekk der bu ñuul nekk benn nit bu ñuul bu nekk ci seen biir euh, nekk benn africain nekk sénégalais waaye nag nekk sa njaboot yàlla def ñun sa njaboot lañ loolu lépp seen sa barke la sa barke la ba tax na fii ñuy wax muy livre bi ñu yor man rekk maa fi nekk ci àdduna bi ba mu daj nit ku ñuul man maa fa nekk maa nekk noonu loolu nag tey lépp dañuy jàpp ke ni sëñ bi li mu def ci àdduna bi daf ko ci Afrique daf ko at nit ku weex moo indi lii moo tax ñun Sénégal fu ñu dem rek sëñ Touba moo ñu fay téye loolu moo tax fu ñu dem tamit kenn duñu fa jiitu loolu moo waral tey président Macky Sall mooy premiere président africain di benn président nit ku ñuul koo xam ne Russie yi bind nañ ko ci seen journal bi journal bii nag duñ fi bind ku nekk euh, bañ ko waxee am na benn njiitu réew ci Afrique bu ma woo ba ma ñëw mu ne ma dama lay jox nationalité ba pare jox la téeméeri million nga bind ma fii nga fexe ba ñu bind ma fii waaye euh, Macky Sall mii sax si sensu Serigne Touba la amee ñu bind ko fii kon boog loolu mënoon naa nangu lool yëpp parce que alal daa neex waaye euh, sëñ Touba mën nañu ci suñu deret ba mënuñoo nangu loolu loolu moo tax ñu bind ko fii euh, bi loolu weesoo ñu wax ne sëñ bi ñii toog indiwuma leen sëñ bi leen indi dama àggala rek li tax ma yeggale nag mooy suñ ma tuddoon faneen ma yóbbu leen ñoo ma tudd Touba kon boog ñoom ñoo tànn tuubaa ñoo xam li fi nekk loolu moo waral ñu ñëw sukk fii ñoom ñaar yeeslu wax la liñ la wax mooy que ni dañoo bëgg seen dëkk jàmmu am fa te biñ ko toqalee ci sa nopp bërki démb ba nga jox leen audience bi jàmm commencé naa am kon boog ñu ne kon ñoom du ñuy ñëw jàkkaarloot yow te xam nañ ne ñoom ñaar ku ci nekk sa njaboot ña nga fa ñoom ay missionnaire lañ ñu bëgg ñëw àggale lii pour parce que ba ñuy ñëw tamit tàggu nañ seeni njiitu réew donc ku ci nekk tey dafa am loo représenté ci réew moomu parce que ñoom ku ci nekk yaa nekk fii ci Afrique di doxal réew moomu li muy def waaye nag yàlla def na ne sa jarbaat sa sët bii toog moom la yàlla def si sa barke maam ci liggéeyu sëñ Touba si fi sëñ tuubaa toll at la mu def at tubaab yi te xamoon ne bis dina ñëw ñun ñu jiite leen moo tax tey ñun ñu jiite leen. dégg nañu dégg nañu kàddu yi sëñ Abdoulaye Sow wax ci li leen tax a jóg dégg nañ ko bu baax a baax a baax. Abdoulaye Sow il a bien compris le pourquoi de ce déplacement et l'intérêt que vous portez à ce déplacement. ne li leen tax a jóg. Euh, yëg nañ ko ci suñu xol bu baax a baax ndax fekk ngeen ci nu doon ci xalaat ci na réaliser na fa jàmm di amee. il avait bien compris les enjeux de cette situation au niveau de vos pays respectifs. Il l'avait bien compris et il n'a jamais cessé de se préoccuper de cette situation et de réfléchir pour voir quelles sont les voies moyens pour que la paix se réinstalle au niveau de cette région. loolu ñoom ci la ñu fekk. il y était déjà avant que vous ne veniez. ñoo nga xool di am mettit ci la fa xew ay wax nga xam ne na fa. ça leur fait très mal de voir des hommes. vivre une situation aussi dramatique et ça constitue aussi pour lui et pour la communauté une préoccupation de premier choix. lii na ngi ci occasionné ji ci feeñal sunu sunu tiis ci bokk gën ko bokk ak ñoom xamuñu woon fi ñëw waaye noonu loolu ci ñu fekk. il ne savait pas que vous alliez venir pour aussi lui montrer votre préoccupation à cette question. ça était déjà une préoccupation pour lui et il était en train de voir, de réfléchir comment trouver une solution de par des interventions, de par des prières, de par tout ce que vous voulez. Et que sans que vous n'en parliez, il était déjà dans cette préoccupation. neen comme wax euh, nañu na seen xel daal bu baax. rassurés. Comme l'a dit Abdoulaye, la tranquillité et les débuts de solutions ont commencé à poindre à l'horizon et ça va aller crescendo. Et Inch'Allah Rabbi, il y aura ce que l'on souhaiterait avoir dans cette situation.